waaw dal leen ak jàmm mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax euh, ñu ñëw ci xibaaru tàggat yaram yi commencé ko ak euh, na Munich bu Sadio Mané tey nag dañu doon football match amical ci diggante ñoom ak. Kawasaki foofee Japon Bern nous avons gagné 1-0 sans Sadio Mané Sur international sénégalais bii Sadio Mané footballul bi la match euh, avant match bi nous nañ que du bokk ci bi la match ndaxte dafa am ay euh, waxtaan yu mu ak Al Nassr ba fa danaka dem na fa donc dem waxon nañ euh, trouver nañ accord donc instant bi nii Sadio Mané di ngeen dégg fii 24 heures euh, dina def visite médicale bi et tout donc signé ci club boobu di Al Nassr donc euh, lolu mo waral suñu international sénégalais di Sadio Mané bokul ci le match match bi nak Bayern football nako gagner ko wante jafe woon na lol ci ñom parce que ci premier football bi Bayern mo mo yor woon bal bi football mais taxul mu dougal ci deuxième période bi nag avant muy dougal football na ba 5 cinquante e minute ci la ki nga xamantene moy sen défenseur bobu de Estañex su suma juumul donc moom moo dugal ci ben passe bo xamantene ne euh, Gravenberch moom moo ko defal moom moo defal donc euh, ak équipe bu Bayern bi ma gis euh, dina lol euh, ci saison bi jëm sax pour ñu pour ñu gagner équipe bi magi donc sans Sadio Mané timi téwul que né Bayern ba da fay am difficulté ngir gagner donc il faut ñu xam que équipe Bayern bi attaquant pointe bu dugal la manqué. donc il faut ñu jënd attaquant pointe boo xamante ne dafay dugal vingt bi 30 bi chaque saison ku ci melni ne Henry gis na sax ñuy waxtaan ak ñoom mais ñu xamé ko non suñu international sénégalais di Sadio Mané beaucoup ci bi la match donc dañ ko écarté woon ci groupe bi ndaxte dafa wara dem fële ci Al Nassr donc lolu mo waraloon football euh, ki di ki nga xamantene moy mooy aké comme ni ma leen ko waxee woon dafay signé beneen ko signé na beneen contrat bu yes ak clubam bi di Manchester City ba 2027 euh, donc euh, signature contrat bi amul woon benn jafé jafé négociation yi amul woon benn jafe-jafe ndaxte Nathan Ake dafa bëggoon a toog foofu ca Manchester City ci jamono boobu euh, mooy Caicedo donc euh, l'international colombien bi nekk fële ca Brighton jamono yi en trois représentant jamono yi ñu ngay waxtaan ak clubam boobu di Brighton ngir ñu wàccee prix bi nga xamante ne moom lañ ko bëgg a nga xam ne dañ ko fixé woon ci cent millions d'euros donc ñoom li ñu gis mooy que dañoo war a euh, fexe nu transfert wu nu mu fexe ba dem donc ndaxte Chelsea mi ngi insisté ngir recruter ko Chelsea def na offre bu baax. donc waa euh, ki nga xamante ne waa Brighton daal koy rejeté donc instant bi euh, représentant yu ki nga xamante ne mooy Moisés Caicedo wala Caicedo ña ngay euh, wax ak waa Brighton ngir ñu wàcc.